nañu gën dooleel suñu dund bi nga xam ne moom lañ seq ñu ñëpp te ci loolu sax laay woo citoyen bu ci nekk kon tamit damay wax ne maa ngi ubbi année judiciaire bu 2024. 2024. yoon di door liggéeyam ci atum 2024 ci ay waxtu yi nga xam ne ni fësal ay xibaar yu ñeel dund nit ki bare na lool. waa dafa am lu nga xam ne tamit ay instruments yoo xam ne day tax nga daal di enregistrer collecter wala nga effacer données boo xam ne day taf rek nga daal di identifier ab nit loo xam ne tamit nit moom moo ko moom. naam tëral nañu ab kuréel ngir mu gën a saytu xibaar yu ñeel dundu nit ki waaye ba tey ñu ngi wëy di ko fësal. bu fekkee ne ci kanam clavier yi. ci ay écran yi wala ay téléphone portable wala sax technologie bu sophistiqué ki nga xam ne kat moo ko woy jëfandikoo yi day indi jumtukaay yu nga xam ne kat yu yéeme la te loole sax lu garaaw la. diggante ñu ci jublu lu bon ak ña nga xam ne dañoo xamut faw rek. ñu yokk daan ya nga xam ne ne moom moo cay tukkee bu ñu sukkandikoo ci conseil bi nekk cour suprême. waaw charte bu Sénégal nag moom am na lu nga xam ne loolu la daal di teg mooy loo xam ne kenn mënu koo jéggi ak ay daan ci li nga xam ne tamit soxlo bi am na ci wàllum euh, xibaar ak li nga xam mooy wàllum informatique loolee nag léeg nag du am solo dëgg-dëgg ci liggéey ba ñuy xaar. waaye tamit faaw ñu dëppoo ak suñuy cosaan ak i aada. waaw dama yaakaar ne bu fekkee ne ku ci nekk daal xam na li nga xam ne kat mooy wàllum responsabilité am ci li nga xam ne. mooy contrat social yii ak li nga xam ne mooy wàllum vie privée ci intérêt général bi nga xam ne moom la ñu gën a yiir mu doon kuréel bu ñu tëral ngir mu saytu liggéeyu magistrat yi conseil supérieur de la magistrature fas yéene taxaw tem ngir ñu gën a mën a sàmmante gi yoon cay xibaar yu ñeel dundu nit ki